bu ñu doon candidat de de de cœur de de c'est quoi la conséquence pour le candidat du pouvoir. c'est-à-dire Amadou Ba. Hmm. bon xam nga Amadou Ba moom comment je peux dire Macky da ko jox pouvoir bi rek simple dafa da ko jox euh, candidature bi pour juste bañ ko Benno Bokk Yaakaar disloqué wu. parce que Macky dafa naroon dem ci ay combat contre Sonko contre Pastef fii donc mënu woon mënu ko woon boole ak contre benn Bokk Yaakaar donc maanaam pour pour fàttu ko noonu la Amadou Ba man euh, je suis pas pour Amadou Ba et tout mais je sais juste que du yomb ci moom quoi. waaw hmm. te yàlla na gën a métti ci moom sax parce que comme c'est un gars système pour man soxlawul soxlawu ko ko soxla muy métti ci moom. non na métti ci moom.